salaam sama gars yi dal leen ak jàmm sama chaîne YouTube ci vidéo bi nag dama leen a bëggoon woon nan ngeen di def ba nga xam ne seen téléphone bi saa yu sonné da leen di wax kan moo leen woo par exemple su fekkee Moussa moo leen woo da leen wax Moussa vous appelle voilà pour ñu bañ tardel ñu dem ci affaire léegi nag suñu ñëwee fii dañuy dem ci Play ñu ñu bi benn application ah mu dugg sama code voilà léegi mu ngi tudd call attends mu ngi nii voilà call ID speaker ngeen télécharge voilà léegi man téléchargé naa ko pare ah dañ koy ubbi directement dañuy koy ubbi configurer ko voilà parce que am na configuration yoo koy def léegi soo ñëwee fii dangay dem continuer nga autoriser ko autoriser waat autoriser voilà léegi fii nga def continuer voilà gis nga fii mu wax la pour nga cocher pour les autorisations nga cocher ko voilà léegi nga retourner waat en arrière voilà joxe autorisation yi loolu du dara ah. léegi ñu def ok léegi ñu revenir en arrière. voilà léegi léegi fii dañuy def euh, appel annonce d'appel foofu la ñuy bës léegi fii nag léegi la ñuy def configuration léegi fii nii heure initiale de donne léegi comme ça su sonné su sonné rek dans une seconde rek day commencé di wax tur bi voilà day wax tur bi en une seconde wala deux secondes yow yaay xool rek su sonné une seconde rek da wax léegi par exemple Euh, annonceur répétitif mooy comme ça day wax Moussa vous appelle Moussa vous appelle voilà da koy day day répété quoi day répété continuellement léegi fekkee tamit quatre nga def par exemple day wax ne quatre fois lay wax tur bi après day noppi voilà mais fekkee continuellement la continuellement léegi voilà léegi comme ça retard entre annonce mooy su waxee tur bi day xaar par exemple deux secondes quatre secondes wala six secondes yaay xool waaye fekkee donc deux secondes la par exemple dans deux secondes day waxaat Moussa vous appelle toogaat deux secondes na Moussa vous appelle léegi ñu wàccaat ma xool voilà léegi appel en en attente voilà appel en attente ñu coché ko annoncer le non seulement léegi fii tamit mën nga ko personnaliser par ah. exemple nga wax ne Moussa appelle wala mu wax la nga bind texte wala neex voilà léegi instant eh, ku la woo jamono ji dina la wax par exemple léegi dañ koy essayer dañ koy tester léegi pour voir est-ce que dana dana dox voilà sama téléphone mi ngi nii léegi ñu def appel bi. gis ngeen comme ni ngeen ko gisee da leen wax carrément ma mère vous appelle ma mère voilà léegi soxlaatoo di. fekkee voilà soxloota nga génn si téléphone bi pour xam kan moo lay wax ok jaa ngeen jëf ñu ngi yemal fii vidéo bi ñaa ngi ñaan ngeen partage abonné jaa ngeen jëf